asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe laaj ak tontu ci diine ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaan yàlla tawfeeq di sàkku ci yéen itam ñaan ñaan yàlla mu boole ñu dimbali di sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen yónnee ay ñaan suñ mbokk moom fi jóge di sama sala sàmb yàlla yàlla nangu ñaan yëpp te jotali ko ci yool bi di leen jaajëfal bu baax di ñaan yàlla itam yàlla fay leen ngeen ci fay te yàlla boole ñu dimbal ñu ñëpp may ñu mujj gu rafet may ñu fan yu gudd ak wér te xëy ñu ci ñu koy jaamu te mu wërsëgal ñu ñu faatuwaale ak ngëm te yàlla fay ñu ngën ji fay te jéggal ñu ay rëcc rëcc yëpp incha allah ginnaaw loolu kon ñu ñëw ngir tontu laaj yi nga xam ne moo fa jotoon a jaar ci samedi bi weesu xam ngeen ne boobu ba léegi ay xat-xat moo ñu jàpp ba tax euh, amuñu jot mën ko tont di jégalu bu baax a baax mbokk yi yónnee woon seeni laaj samedi ba léegi ñu ngi leen bu baax a baax incha allah ñu ñëw ngir tontu laaj yi fi jot a eh, jotoon na jaar. laaj bu njëkk bi te Mouhamed Cissé laaj ko li mu doon laaj moom mooy ndax wayjur eh, am na xàq ci forcer doomam ju góor may ko soxna tontu li moom mooy déedéet doom ju góor kenn suñu ko forcer di ko may soxna te neexu ko ndax daa bokk ci charti yi tax see wér mooy al ijaab wal qabul maanaam daal soxna si kilifaam moo koy maye kam koy may itam nangu ko. kon doom ju góor ji bu fekkee bàyyi ma ko bëgg may soxna nangu ko sëy ba du wér ndax nangu amu fa wallahu am laaj ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy kii da fay barub koor bi mu demee ba mu def mu jàpp yoon tukki mu nag dagg koor ga ba tukki ba ñëw dog koo àggale mu laaj lu ci lislaam wax waaw loolu dara néew ci loolu dara néew ci ndax fay barub koor moom kenn du sartal nga sësale ko bu la neexee mën ngaa woor ay fan noppalu ay fan même boo tëkkiwut sax noppalu ay fan saa yoo bëggee waral war ba a muy mat da ca am solo rek moom mooy nga fay ko balaa weeru koor ñëwaat kon soo doon fay bëri koor woor la nga mën a woor ginnaaw a nga noppalu mbaa ngay tukki nga dog ba ñëw àggale ko loolu dara néew ci daggan na te dara du ci war itam wallahu a'lam laaj li topp te Cheikh Ibrahima Ngom laaj ko li muy laaj mooy kuy wér te du teewlu euh, la muy wax lan la ci lislaam wax waaw teewlu ko de moo gën dañ koy digal nag bu ko mën a teewlu moo gën tudd gi noonu saw làmmiñ rek moom baax na waaye nag dana gën a baax te nag ngay teewlu li ngay wax bu dee tur yàlla la ngay teewlu màggug yàlla gi ak tur li muy tekki bu dee julli ci yonte bi julli ci yonte bi itam la nga koy teewlu nag tudd gi moom ba tey baax na waaye daa teewlu gi moom daa gën wallahu am laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy ku am soxna fase ko lu ëpp euh, ñetti yoon fase ko ñetti yoon daal di jëm kaw eh, ginnaaw ba nag mu continué di sëy ak moom ba léegi ba doom judd ca doom yooyu ndax dañuy jàpp doom njaaloo wala dee moom mooy waaw waaw doom njaaloo la ñuy jàppe kay eh, ndax ku xas fase si soxna yoon moom lislaam dafay araamal seen diggante ba kero am beneen borom kër ba tas foofa nga doog ko fee takkaat kon bu continué di ko takkaat ba léegi di sëy ak moom moom mi ngi njaaloo doom yi juddoo itam doom yi njaaloo la jàppe wallahu a'lam laaj ji topp Abdoulahat Diop laaj ko eh, lim laaj mooy mooy ñu nekk ci am réew eh, ci réew moo xam du réewum jullit ñu ne nag ko fa faatoo daal faaw da nga jënd bàmmeel ñu suul la ca wala boog ñu yóbbu la sa réew mbaa boog ñu taal la mu ne dafa am nag eh, mbokk mu faatu moo xam ne ñoom mënuñu koo yóbbu ca réewam ngir rob ko fa te itam mënuñu koo jëndal bàmmeel nan lañuy def Eh, waaw jënd bàmmeel da jàpp na ne wut a jafe xam naa yóbbu gi ca réew ma moom bu jafee itam ngir la muy laaj ci wàllum eh, financement jënd bàmmeel moom jàpp naa ne wut a jafe jënd bàmmeel wut jafe su ko defee kon nañ def luñ man ngir jëndal ko bàmmeel eh, ngir mën koo denc insha allah loolu la leen wax bu jafee liñ man lépp nag buñ jafee liñ man lépp jéem nañ ko yóbbu mënuñu ko ñu bëgg jëm ko jënd bàmmeel mënuñu ko def liñ man lépp ah su boobaa dafa sës moom moo fa sës yàlla moom tuur kenn lu mënut su ala kulli nañ def liñ mën lépp ngir e, jooxee li nga xam ne moom leen sariya digal ci seen bokkum jullit mu faatu te mooy suul ko ci ay armée la jullit la ñuy wax suul ko nañ ko suul te suul ko tam foo xam ne ay ñoo fa nekk waaye bu nekkee foo xam ne suul ko mënta nekk nag ndax xëy na lam laaj ci wàllum financement amuñu ko mënuñu ko te dafa li ñu mën lépp waaw subaa nag la fa sës rek moo fa sës wallahu laaj ji topp mbokk mi xam naa ñaari laaj la dugal waaye ñu fàttali rek ne ku nekk benn laaj day laaj kon laajo bu njëkk mooy àtteb tabax bàmmeel lan la ci lislaam wax waaw lislaam da ko tere borom xam-xam yi nañ ci ndax dafa xaaraam wala dañ koo sib waaye lu mën a xew moom lislaam tere na koy tabax bàmmeel yonte sa moom moo ko tere kon li gën moom moom bàyyi ko ndax ñeneen ñi ne dañ koo sib ñeneen ñi itam da daa xaaraam lu mën a am rek kon moom mooy tere nañ ko kon dañ ko war a bàyyi wallahu a laaj bi ci topp mbokk mi moom man yu lay laaj nan lay mel man yu de ndox mu weex lay doon ba noppi tal euh, xawee tam ñagas bu buy génn itam day génn ci ak jañu li ëpp itam bànneex moo koy moo koy génnee eh, kon noonu lay mel loolu su génnee rek kon loolu man niwi la te su boobaa itam su fekkee bànneex moo ko waral su boobaa day waral sama farata laaj bi ci topp mbokk mi li muy laaj mooy lan mooy àttab ñi nga xam ne dañuy laaj seen diine te buñ leen waxee ne lislaam da koo tere du tax ñu bàyyi ko eh, waaw su boobaa dañuy am bàkkaati loolu rek ndax lépp loo xam ne moom lu lislaam tere la ku ko def da am bàkkaar bàkkaar ba dina gën a rëy ci ki nga xam ne moom xam na ne lii dafa xaraam mu koy def kooku moom bàkkaar mu gën a rëy kon ki laaj dara ci lislaam ba ñu ko lislaam nga ko tere mu koy def nga xam ne na ne lii lu luñ la ba mu koy def kooku moom bàkkaar moo gën a rëy bàkkaar la euh, te ko yàlla jégal mën na ko jural fitna ëllëg allahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi li muy laaj mooy kii daa amel ay nit ay bor te mënu koo fay léegi muy laaj ba xam bor yooyu su ko ci dee fekkee lan la ko mën a jural waaw bor yooyu na ko bind na ko bind te déclaré ko ba bu yàlla dogaloon ji jii génn àdduna am yàlla na ko yàlla yàggal eh, ba mën a fay bor yi waaye bu génnee génnee àdduna diggante bi dafay dafay bor yi ay mbokk mën a xam ne kat amee na ay nit xàq ji su ko defee lu ñu ko mën a dimbalee ci fayal ko bor ñu fayal ko ko. ma bu fekkee bàyyi woon na dara lu ñu mën a miraas jaay ko fay ci bor yi ñu fayee ko bor loolu mooy tax ba yowmal xiyaam kenn di ko topp dara waaye ba loolu amul kat bu yowmal xiyaam ku amee leen bor dana ko topp alalam ba mu fay leen bi ci topp mbokk mi li laaj mooy ku am soxna ba noppi def ci ay ñaan gi ma gën laa jublu ndax dagan na mbaa daganut waaw yi aju ñaan yi ngay def yu mu doon rek bu fekkee ñaan yu dagan la ñaan ci yàlla daal mm, soxna nga gën a jubóog moom loolu na waaye nag bu fekkente ne da ngay jëfandikoo loo xam da koy tàqale ko xelam dafay da koy tàqale xelam mu mel ci yow noo xam sañu koo bañ mm, nga xam daal xëy na njabar fa jaar moom loolu ko xam ne lu xaraam la wallahu laaj bi topp mbokk mi li muy laaj mooy ku jàpp ba noppi laal jigéen ju mu takkut mbaa mu nuyu ko ndax dina yàq jàppam wala déet euh, suba dañuy xool ba xam rek du ko laalee ndax da ca jubluwoon bànneex wala déet bu fekkee da ko ca jublu woon moom njàpp ma yàqoon day jàppiwaat moo xam am na ci bànneex moo xam amu ko ca bu fekkee jublu ko ci woon itam waaye nag ginnaaw mu am ci bànneex moom ba tey suba njàpp ma yàqu na bu fekkee da ko da ko laal dong nag jublu ci woon bànneex tey ko ca su boobaa da ko nuyu woon itam te bu ñu ko nuyu jublu ca bànneex tey dem amu ko ca ba tey njàppam du yàqu euh, wallahu a'lam laaj ji topp mbokk mi koy laaj li laaj mooy ku am soxna dem ba soxna sa faatu wala boog ñu tàqale ko maanaam ñu tas ndax mën naa takk rakkam mbaa magam waaw waaw loolu kay dagan na li ñu aaya ci dajale ñaar ñu bokk mooy nga dajal leen ci benn waxtu kenn jamono maanaam waaye boo xasee tàqali ko kenn moom suñ ko takk rakkam mbaa magam boo kenn xasee faatu tam ba tey suñ ko takk rakkam mbaa magam loolu moom dagan na wallahu a'lam laaj ci topp mbokk mi xam naa ba tey ñaar laaj la dugal waaye ñu tontu benn bi bu njëkk bi mooy li ñuy wax ay martaba ki maqaam ñu koy dégg ci yenn nit diine yi ndax yonent bi sasam daan na junj lu mel noonu mbaa mu koy wax saxaaba a wala déet tontu moom mooy loolu moom jamono yonent bi sasam xamuñu ko woon ginnaaw bi lañ ko euh, lañ ko xam mu nekk ay mustalahaat yu ñuy jëfandikoo ci suufiyanke yi kon jamono yonent bi sasam xamuñu woon xeeti ba yooyu euh, dañu dégg itam mu koy wax loolu lañ koy tontu wallahu taala alam bu fekkee ay karaama laa ki baax nag moom daana am ci ay jamonoom moom yonent bi daana def lu tudd sa ay saxaaba mi tam am na ci ñoom ñu def ay karaama waaye daal maqaama yi dégg moom ñu koy wax loolu moom yonent bi san sam ak i saxaabam xamuñu ko woon wallahu alam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy dafa am soxna soxna du jullit léegi la nag lu mel ne dimanche muy faral di ànd ak moom ñuy dem di añi ci seen kër famille foofa nag buñ toogee ci taabal ji rek dañ fay teg yàpp yu euh, xaram maanaam lekk yoo xam ne yu dëgganul la ak ay naan lu mel ne sàngara ak yooyu te lekk gi léegi dañ koy ubbee seen ñaan yooyu nga xam ne ay bokkal yàlla da cee am muy laaj ba xam nan la war a def euh, waaw toogaale kuy naan sàngara de dañ koo tere yoon bi sallallahu alayhi wasallam tere woon euh, kon des ko war a bàyyi ab toog ak kuy naan sàngara mbaa kuy lekk lu xaraam teewul nag bu fekkee mën naa téye boppam ba moom du ca bokk rek suba moom du ca am bàkkaar waaye daal gënul moom ci ab jullit muy toog ak kuy naan sàngal mbaa kuy lekk lu xaraam ñaan yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàng ci seenu ñam muy ñaan yoo xam ne ay bokkaat da caa am moom bu ca bokkul rek ba tey du am bàkkaar ci loolu waaye rek loolu lépp moom bañ faa teew daal moo gënoon moo gën a sàmm moo gën a wóor itam ndax yàgg gi nga ko yàgg a fekke mën naa dama dem ba ñooñu influence ko mu mujj di ca bokk baa boog affaire bi du garaaw ci moom te yëpp ay danger yoo xam ne eh, yu mat a daw la yu mat a daw la kon daal su ko mënee moytandiku di añandoog soxnaam ci këram rek bañ sàkk feneen fu ñuy dem ñoom ñaar buñ fa eh, am yooyu ñaan yooyu dafa dégg ñaan yooyu loolu moo gën su munta am nag mu fexe góorgóorlu bu baax rek fexe ba ñu bañ koo influence bañ def jeexit ci boppam mbaa ñu yàq taw fi eh, kii aqidaam wallahu laaj ji topp mbokk mi li muy laaj mooy ndax dafa am ci nit ñi ñoo xam ne buñ jaaree safara tam duñ fa sax waaw loolu bari na bari na lool ñuy jaar safara ci jullit ñi bu dee jullit ñi la moom képp ku jaar safara moom doo fa sax lu mu yàgg yàgg da nga mës a génn aljanna ndax ñi sax ñi sax safara moom mooy ñi nga xam dañoo weddi woon yàlla weddi penc kon bari na lool ñoo xam dañu jaar safara waaye duñ fa sax wallahu a laaj bi ci topp te sonde Asu Juuf laaj ko moom tam ñaari laaj la dugal waaye ñu fàttali rek na ku nekk benn laaj la sañ laaj xam naa moom laajub ñaareelam bi tontu nañ ko sax ci euh, laaj bi ko jiitu am na mbokk mu laaj lu ñu moom ba tontu li lenn la tamit bàkkaaru ku bokkaale yàlla kon laaj bu njëkk a laaj euh, mooy kuy julli euh, war julli ndax mën nga ko wax ci olof wala déet waaw boo ko mënee wax arab de moo gën su fekkee mën nga ko soo su fekkee mënoo ko nag moom làkk woo dégg moo xam olof la moo xam weneen làkk woo dégg mën nga ko sañ nga ko caa wax loolu moom dagan na wallahu alam laaj bi topp mbokk ma koy laaj limi laaj mooy ñu rek soxnaam ndax daga na ci fanaan ñu fanaan ci néeg boo xam ne am na keneen ku la ñetteel di jigéen te aramantewut ak góor gi tontu li moom mooy déedéet loolu moom du dagan lu dul ne xanaa ñu dem ba ñàkk pexe rek waral ko te su amee itam nag borom kër ba moom du sañ seq soxnaam dara ci teewaayu kooku noonu nga xam ne mi ngi ci néeg ñetteel leen di sañ seq moom dara loolu su boobaa day xaram ci moom wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi li mooy ku doon julli eh, la wax bismillahi rahmaani rahim ci faatee ji bu faatee ji àggee muy jàng saar waxaat bismillahi rahmaani rahim lan mooy àtte loolu dara néew ci dara néew ci dagan na wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi li laaj mooy lan la lislaam wax ci ndaw soo xam ne dafa eh, gàtt ay wax maanaam daal dafa nekk si wax waaw lislaam moom day tere loolu loolu nag du jigéen rek la ko tere waaye même góor itam dañ ko koo wax wax ju di masla kon lisaan dafay tere boo xam dafay e, wax wax yu ñagas mbaa muy tontontu yu gàtt yoo xam ne mën naa rusloo ki ñuy waxal loolu moom daa bokku ci bokku ci ji koy rafet bokku ci ji koy rafet moo xam góor koy def moo xam jigéen koy def wallahu a laaj bi topp mbokk mi li laaj mooy lu mel ne xeesal ak mees nga xam dafa xaraam ndax njëgg dina mën a aj màkk wala déet waaw yenn du sanson daa wax ne yàlla saa yu araamal dafay araamal lekk njëgg gannaaw yooyu araam na seenu njëg itam day xaraam bu fekkee nit ki ci la commerce ba am alal dem màkka aj ga moom mën naa wér te itam farata aj moom wàcc na ko waaye nag dina am bàkkaaru fàggum fàggu alal ci loo xam yàlla ko xaraamal wallahu am kon loolu mooy laaj yi fi ñëwoon yàlla yàlla may ñu dégg ak topp te nangu ñu di delluwaat rek di jégglu mbokk yi ci yeex gee tontu laaj yi ñu xam ne ay xat-xat rek moo ko waraloon ñu ngi ciy jégglu bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah